بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله كاشف الغمة وصلاته وسلامه على شفيع الأمة وعلى آله وصحبه الأئمة ومن تبعهم بإحسان واسترشد برشدهم إلى يوم القيامة مشاهدي ومشاهدات لز تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi yéen ñi baaxoo di seetaan Leuz TV rawatina seen jotaayu waxtaan te ndaw ak tiine ñëwaat nañ fi mu daan waxtaanee ak yéen di leen jéggalu ci gëj a waxtaan gi ndax koor gi daanaka déggante wuñ ci benn yoon wala ñaari yoon moo tax itam ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax situation bi moo tax xëy na tey dañoo ñëw rek am benn mbokk bu ñu dalal nga xam ne xam-xam dafa wàcc si wàllu fiqh maanaam dafay jàngat wàllu jurisprudence islamique moom la gën a si la gën a si la gën a si la gën a joy ñu dalal ko pour bëgg waxtaane moom ay tomb waaye balaa ñu dugg si biir waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyu ñu ngi tudd Oustaz Amadou Sénéba Diop Oustaz Amadou asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi والصلاة والسلام على مولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ñu ngi lay dellu nuyu Oustaz Birame di di la sant bu baax ci invitation bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq def nañu li nga xam ne mooy ngërëmam euh, di nuyu ñi nga xam ne ñu ñuy bàyyi xel ci chaîne Leuz TV euh, ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ñoo liggéey yal yàlla barkeel leen yal yàlla sàmm leen kon euh, bu ñu sant yàlla jur seen sans sallam sant la di déglu incha allah ci li nga xam ne ñoo waxtaan bi incha allah macha allah kon mbokk yi dañoo dañoo tàmmoon ci lislaam dañoo tàmmoon ci lislaam bu balaa daan wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala am na waaye jamono di dox jamono di dox jamono di dox ba ci gën ci tënk ci tënk oustaz ñëw ba tey ñu ne 2020 wax coronavirus coronavirus tey booy xool jeu de mots yi corona corona koran koor jàngat boo ñu mën a defal ci ñetti baat yooyu. Euh, waaw ñu ngi sant baax ci laaj boobu xam naa bu ñu waxee corona. ak koor xam naa ne tombe ci ay baat lay doon mm-hmm. waaye nag yàlla yàlla yàlla def na ñu ñu duggante ba konoon nag xaar ba koor gi xaar ba ñu ba fekk fi bañ ànd mm-hmm. foofu nag se sell bi rek mooy koor dafa nekk loo xam ne lu am wàccuwaay la ci boroom boroom yi nga xam ne moo ko wàccee ak ci ay xeetu yool yi mu ci digee ak dayo bi bi mu toll ba tax na am nañu yaakaar baax ne buñ buñ ci jàppee euh, ñaan ci yàlla mën na cee xool ba li nga xam ne mooy jafe-jafe te mu nekk ci corona mu dinañu ko ci barke barkeb koor googu loolu yi yaakaar naa mënees na ko jàngat mm. ndax comme que am na lu leen boole rek mm. lay jëriñ ci bii war naa mën a dindi ci léegi ndax jàpp nga ne Sénégal yi wala ñun waa Sénégal euh, ndax euh, maanaam temps wala boog nañu jëflanteeg corona bi en tant que ay ndax loolu dal la sa xel maanaam ndax bàyyi nañ habitude yu yi ne continue yaakaar naa xamal li ma bëgg a wax voilà euh, bu dee feebar bi nga xam ni bi mu dugg see hmm. bu dee ci wàllu nañ ko waroon a gàttandoo oh. xeetu moytu mën nañoo wax ne am na ci yoo xam ne manqué na manqué na ndax bu fekkoon li ñuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digaloo mu nga xam ne même état bi sax jëf na ko ci benn côté sàggan ci benn côté bu fekkoon mat na tey natt bi mën naa mën naa bañ a dal wala mën naa néew ci ñu ndax bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wabaa mooy feebar mbas bu amee ci barab mm-hmm. bu fa kenn jógee di di gusi mm-hmm. bu te bu kenn génn jëm fa mm-hmm. kon loolu tegtal la boo xam ne yoon saa sallam nañ ko waxoon ci xam-xam ci xam gi nga xam ne yàlla da koo xamal ne yu mel ni day day xew ndax ñi ñi ñi fàttali si fàttali rek ñun cas bi njëkk a cas importé la. cas importé la kon lu mooy dëggal li nga wax. maanaam cas importé ah. deuxième bi cas importé la. waaw ah. yëpp kat cas importé la ba nga xamee ne xam nañ ne mbir mi ma ngay tasaaroo xam nañ ne euh, gaaw wàlle wàlle bi nii la gaawee. Mm-hmm. te ñun en tant que jullit yéen sallallahu alayhi wasallam lii la ñu jàngal ci. Mm-hmm. nu ñuy moytoo moytu jéego bu njëkk. Mm-hmm. buñ ko defoon euh, tey fi ñu fi ñu yegg ak ak fitna gi ñuy dund. ak jafe-jafe yooyu tiitaange ñàkk ñàkk kulti gi ragal gi. Mm-hmm. ak dem bay jàkka yi di tëj. Mm-hmm. maanaam nit musaafaxa li ni gënoon a yomb léegi mënatuñ ko. Mm-hmm. génn bi sa saa yu bëggee génn mënatoo lu lépp. ci benn lu lu ndaw loo xam ne boo ko defoon jàppal ko lu néew te boo defoon li lépp mu fànqale ko. macha allah kon loolu mooy dëggal rek la borom xam-xam ba wax ne fa laysa baadallahi min mustaatabin wala wala al mustafa min mazhabi maanaam gannaaw amatul beneen lay gannaaw Mouhamed amatul beneen masal mais oustaz euh, kon loolu li ngay firndeel wax nga ko wax ngay loo xam ne gënoon na siy tëltuwaat mais li ma bëgg a laaj mooy léegi nag ñu ñëwee ba si biir ba si biir ba léegi mbas mi am na ba installé ba état bi jël ay mesures euh, foofu la ñu duggee gën a gën a si ci biir jàngat bi ngeen bàyyi xel tey dañuy jàngat mooy bi état bi maanaam coow li am wala genre coow wala genre wuute bi am ci diggante kër diine yi entre guillemets la laa mën a tuddee loolu ban jàngat la si mën a def maanaam loolu lu am solo la ndax nattu bi mu bi mu delsee réew mi dafa feeñal beneen mbir mooy ñun euh, suñu cëslaay fi ñuy fi ñuy taxaw dafa woyof dafa yomb yëngal ndax bu fekkoon am nañ lu tuddee cadre unitaire boo xam ne lépp loo xam ne moom la ñuy def ci diine muy position boo xam ne dañu ko war a jël fa fa lañ koy toggee ba mu ñor ñu génne ko fa kon jafe-jafe yi du am ndax bu fekkee lu mel ne jàkka nga xam ne buñ ko waxee wax diine wax bu ko wax diine wax nitu diine kon ñoom ñoo war a eh, am ñoom ñoo responsabilité yor jàkka yi. bu bu demee ba feebar bi mel ni am ñuy wax ndax dañ ko tëjee duñ ko tëj waroon waroon nañoo. noppal nit ñi ci nu ñuy doxalee noo xam ne lu ci def rek dañu xam ne lii lii lañ def moo xam buñ nee buñ gëstoo ci xam-xam gëstu ci sharia ak ci ay ay adil la ba gis ne muskila bi kat fii lay yóbbee dara la boo xam ne day tahdid nufuus yi mu nekk loo xam tahdid xaqiqi yi comme ni ni ñu ko jàng ci ma maqasi baqa a xam ko tahdid maanaam menace menace menace maanaam bu fekkoon loolu dafa am. Mm-hmm. ñu jël décision tëj ko. Mm-hmm. ñëpp marché si daa nekk lu am solo. wala ñu xool gis ne li tax ñu tëj amul lépp ci kaw waxtaan ñu mm-hmm. def ko. waaye boo xoolee des ni ñu ko jëlee. ndax par benn benn lañ ko def. te loolu nit ci ni ñu wutee. bu kenn keneen euh, jëlee wax boppam. bu buñ nasanawul rek mën ñoo bokk li ñu génnee. ndax boo xoolee euh, bu dee euh, euh, ra ra ay noo doyaat. waaw ah. buñ ñoo gën njëkk a génne déclaration ne comme jàkk jàkk yi nga xam ne ñoo bootu ci ñoom. Hmm. àjjuma ñu ñu bañ julli. fekk na boobu sax ci état Sénégal jëlagul. benn xalaat jëlagul benn dogal. Hmm. boo xam ne day day concerné jàkk yi. Hmm. donc di nga xam ne président de république bi mu defee. déclaration bi wax na euh, rassemblement. tere ko. Mm. waaye nag jàkka yi kenn. kenn marché wu doon jàkka kenn marché wu doon jàkka waaye ñoom ci am ñu gis ne jot na jàkka yi bokk ji ñu def waaye nag boobu defuñu ko ci cadre concertation. Mm. ba tax mu mu indi jafe-jafe yu ënn. Mm. léegi nag dem na ba ci biir euh, xam naa yéen ci kilifa kilifa yi gis ne ci commencement bi dañ cee àndoon. dama ci biir ñu gis ne peut xamuñ fa mu jëm. ñooñu mm-hmm. léegi daal dinañ ko ne def def la xam. Mm-hmm. delluwaat delluwaat. loolu lépp li muy teg mooy euh, pour man maanaam mbir mi dañ ko yàkkamti. Mm-hmm. maanaam jël bi ñu jàkka ji tëj ko. ñu ko yàkkamti. man nañu ko gën a jàngat. ndax euh, nekkul ci maanaam ci euh, lu dëppoo li war a am. nga ne feebar bi kat wàll wàll dafa gaaw. mën naa dal ku ne kon léegi comme que am nañ am nañ benn kaas wala fukki cas nañ nañ tëj dem ba am miin tëj maanaam ba li nga xam ne moo gënoon a jël jotee ñu ne tëj nañ ngir lan daw euh, loo xam ne gis nañu dara loolu loolu muy tekki mooy buñ ko jàngatoon waaw ca ca njëlbeen mm. ba xam yegg jar na ko wala jëru ko ak yan conséquence lay am mm. ñu jéem a bàyyi xel sax li nga xam ne bu ëllëgee moo ñu dawloo ci ñu dellu siwaat ngir ñu wañ def loolu mooy da ngay xalaat tey xalaat xalaat ëllëg fa mu jëm yëpp mooy mooy xam conséquences yi ñàkkoon ñàkkoon a jàngat conséquences yi moo mm. dem bañ gisee bañ demee ba kaa yi gën a bëri gis na ak conséquences yi ñu ñu dellu si dellu siwaat ginnaaw macha macha allah kon boobu yaakaar naa ne nekk na jàngat bu am solo oustaz allahu yubarik fiik yàlla yàlla mottali jàngat bu am solo maanaam euh, dafa mel ni euh, ñun dañuy làmbatu wala boog yéeme na daal ala kulli xaal ndax am ñaar am ñaar tëj jàkka yi nangam nangam dem ba am lu ma junni wala euh, junne lu topp daanaka léegi da ngay bàyyiwaat nit ñi loolu moom nekk na loo xam ne am na lees waxul ala kulli xaalin firi na oustaz indi lu am solo pour wane maanaam ñàkk a dëppoo wala boog ñàkk ànd koo xam ne dafa feeñ ci diine ji ci Sénégal te loolu yàgg na am xëy na du Sénégal dong foofu la ñu duggee ci ñaareelu tomb jàngat bi ñaareelu tomb jàngat bi dafay dellu ci wàllu maanaam li nga tuddee mazhab bu ñu waxee mazhab ngeen baal ma mooy da nga di ñaan la ngiru Malik ngiru Hanafi ngiru nàngam ngiru nangam oustaz ci gàttal mazhab ban taxawaay la am ci diine ñu fàttali ne ñu fàttali nit ñi nga xam ne mazhab euh, euh, dafa ni ñëw nekku fi woon jamono yonent bi am dafa bokk ci yi nga xam ne ci gannaaw yonent bi lañ ko sos ci biir diine loolu tam lu bàyyi xel la kon maanaam li ñuy wax baatu bidaa kon mazhab bidaa la ci waxin maanaam bidaa ndax mooy li nga xam ne dafa am ci gannaaw yonent bi waaye dafa nekk bidaa boo xam ne lan moo nekkoon objectif bi xëy na oustaz dina si ñëw ak itam ndax objectif bi atteindre na ko ndax mazhab li mu jëriñ euh, wala boog ndax li mu lor ëppul li mu jëriñ ala oustaz daal bëgg nañ ko xam mazhab lan mooy objectif bi ndax atteindre na objectif am ndax li mu lor ëppul li mu jëriñ ak itam nga xam baatu mazhab ci wolof ci ngeen ko mën a xam oustaz euh, waaw fekkee ci wàllu mazhab xam ne moom ci wolof dañ wax ngir ngir ngir buñ ko bëggoon a tekki dañuy ne euh, sharia mu la euh, maanaam diine ji bi nga xamee ne euh, wàcc na ci yonente bi mu ko doon jàngalee saxaabaam di leen ko firil maanaam di leen jox alquran wa mislahu maahu mislahu maahu mooy mooy xadis mm-hmm. di leen ko leeralal mm-hmm. buñ amee lu leen gaar di ko laaj yow saa salaam di tontu yenn saa yi ñu am loo xam ne dañ koy def yonent du yëg bu ko yonent bi yëgee benn mu saxal mu confirmé wala wala mu infirmé loolu yëpp ay daana am ci jamono yonent saa sallam bi nga xamee ne yonent saa sallam euh, génn na àdduna nga xam ne diine ji li nga xam ne moom moo la war a indi mat na léegi rek mu des saxaaba yi saxaaba yi am na nañ fi hadith am nañ fi alquran am nañu ay dégg ñu ci am am na ay dégg ñu ci am ndax mm, yàgg na am wute wute ci ñoom ci ni ñuy firee yenn yi comme comme ni ñu ko xamee xam nañ ci saxaaba yi ñu tuddee Sharayd ibnu Umar wa Ruxas ibnu Abbas ñu tuddee maanaam ibnu Umar dafa amoon benn euh, doxalin méthode boo xam ne dafa xaw a li tuddee dafa xaw a tax moom daawul yombal dara. Mm. Euh, euh, euh, safaanam nekkoon Ibnu Abbas. Mm. nga xam ne moom yombal lañ ko xam ne ci yu bëree bëri. kon mm. doxalin la woon. muy dem taabi'uuna yi jël ko ci ñoom. taabi'uuna mooy moo ñu mooy ñu wuutu saxaaba yi. ñu wuutu saxaaba yi ndax ndax saxaaba yi. biñ fi nekkee am na ci ñoo xam ne ñu tuddee ñoo. ñoo doon mu tëgi doonee nga mm. xam ne ñoo doon borom xam-xam ya mm. ñoo doon toll ñoo doon ubbee ñeneen ñi lëkkalewul ñëpp am benn capa niveau capacité ci charia mm. ci déggin bi ci ci firi euh, euh, alquran wala ci hadith léegi ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ay mujtahidoon nga xam ne ñoo ñoo nekkoon boo xam yu mag ya tàggat ci ñu topp ci ñoom ñu tudd ay taabiuna ci euh, xam-xam ci alquran ci hadith ak ci ay masaay yoo xam ne ñoom ñoom ñoo koy defal seen bopp moo tax même bu ñëwee ci masaay yoo xam dañ ci ñëw day gis ñu la xawlu saxaabi mm-hmm. day bokk ci ci dalil yi mm-hmm. mooy saxaaba bu waxee mm-hmm. ndax ginnaaw boo xam ne alquran jàll hadis jàll xawlu saxaabi ki xam ne moo dund ak yonent bi ndax a baax mooy film saxaaba ça veut dire que dafa am ci yenn ay yoo xam ne firi yi du bokk wala boog gisin yi mm. du bokk mm. léegi nag loolu moo màgg mm. di màgg ba ñëw ci eh, ñi nga euh, ki nga mooy al imam Abu Hanifa an Nu'man xam ne moo mag ci borom ngir yi ginnaaw imam Malik dina yoonu yoonu Shaafi'i dina imaam ah Ahmad ibn Hanbal. kon mooy ñeenti mooy ñeenti ngir yooyu. kon sax maanaam. waaw xam nga xëy na pour comme dañuy xaw a njëkkanteeg temps bi. li nga te li ngay wax niveau bi dafa kawe kawe boo xam ne euh, arabisants yi nga xam ne ñoom ay gëstukat lañ dinañ dinañ mën a seede li may wax macha allah. kawe na kawe boo xam ne ñi nga xam ne ay gëstukat lañ mais tey bu ñu ñëwee tey ba am am Malik am Shaafi am am Ahmad ibn Hanbal ak. Euh, euh, ak Shaafi'i léegi muy ñetti ngir yi ñetti ngir maanaam tey oustaz moo doon laaj rek question réponse moo gaaw ngir lan moo nekkoon objectif maanaam mbu ngir boo xoolee objectif boo bëggee natt moom doo ko natt ci ki ko sos ndax ki ko sos ñëwaloon pour sos par exemple imam Malik bi nga xam ne mooy ngiram mooy bi nga xam ne côté bi ñu nekk muy ko wër ah, jëm jëm ci Maroc Tunisie ah. Algérie yëpp mm-hmm. ci ci la moom ñëwul woon ne damay sos mazhab. ñu dañu ko am képp ci ñëw di sos mazhab waaye borom xam-xam la. Mm. di jàngale. Mm. am ay taalibe. Mm. léegi yow na ngay déggee. na ngay firee ak nga jot ci ci ci ay ci ay hadis. mas masala yan ca tabaxee. te am ci say say ñu ñëw topp ci di firi say wax. loolu fa la ñu mi tàmbalee. macha léegi nag ci ginnaaw bi say taalibe ñoom ñooy def li ñu tuddee. Eh, eh, eh, ñoo koy tabaxaat ñooy tabax li nga xam ne mooy mm-hmm. ngir bi mm-hmm. ñoo koy wutal ah, maanaam ay fondement leeral yan mooy dalil yi muy sukkandiku mm-hmm. yan mooy la lan moo ci masala bu ne loo ca wax bii loo ca wax lu séparé ko def ay abwaab ay fusul donte nga xam ne moom par exemple imam Malik bi may wax Muwatta la bind xam ne benn téere lañu am ci ci téere bi muy ci téere yi comme ni ñu koy waxee téere boo xam ne téere boo xëy sallam la fi dajale ak ay waxi. firi ay firi saxaaba ak dégginam yenn saa yi. ci loo xam ne gi gis ci loolu ginnaawam Ibnu Qaasima comme ñi nga xam ne ñoo ñëw ànd ci moom. di ko firi ba xam bi boobu mi ngi Madina. nga xam ne Madina mu daw war a. nga xam ne moom imaam Maalik a la nekkoon bañ tuddee imaamu daal di hijra. kër mooy imaamu këru gàddaay. këru gàddaay mooy bi ñu jógee Màkka jëm Madina. Ah. moom moo nekkoon imam ba mm-hmm. ñoom ibnu qasim mm-hmm. ñoom euh, ashab ñoom ñëpp jële jële ci moom kenn ku nekk fa nga dëkk tasaare ko ay ñi dem Irak mm-hmm. ñi nekk Andalousie mooy Espagne te jamono yi xam ne l'islam a fay tasaaro dem fu nekk ba mujj nekk ngir nekk ngir boo xam ne dem ay xam-xam maanaam dem ay banqaas leen lu ne ak lam ca wax leen lu ne fa ko teg doo ko ñëw ah. ndax leen lu ko teg li ko indi mooy munaafasaat yi amoon diggante ngir yi. Mm-hmm. bi ma wér bi ma wér bi ma wér kenn ku ne pour défendre sa mazhab. Mm-hmm. da ngay indi fan la fan la tabaxee léegi nag bu ñëwee Sénégal xëy na mu nekk kon li li gën a leer ci wax ji rek tey ñëpp war koo bàyyi xel mooy kon ndeke mazhab Malik taxawul woon ne lii mooy sama mazhab Shafi'i taxawul ne lii mooy sama mazhab mais mazhab mais façon bi mu doon jàngalee ak ni mu doon argumenté ak taalibe yi ñu amoon dañoo dem ba ci biir taalibe bi bu waxee nga xam ne kii kat Maalik ko ko jàngal kii Saafi moo ko jàngal kii moo ko jàngal kii moo ko jàngal ci loolu lañ sukkandiku ba mujj mu jur ay mazhab léegi nag oustaz ci gàttal xëy na waxtu bi ngi dem li ci des bariwul fii ci ne da ngay gis man na loolu du yàq l'islam mais dañoo bëgg pour que nit ki boo bëggee liggéey tey ji oto bu a daw ak ci def léegi Sénégal gis koo xam ne daal la man Maalik laa tënku mais dafay jëf ci loolu noonu lan ko mën a lañ ko mën a jàngatee Euh, waaw loolu xam ne benn. phénomène la boo xam ne day day am. Mm-hmm. maanaam man Malick laa. Mm-hmm. ci ma ci ma Malick laa nekk waaye lu ma def laay tànn. Mm-hmm. loolu dafa am ñaari euh, lecture yu ñu ci war a def. bu fekkee da nga ne Malick bu waxee man damay topp dalil benn li ci mën a déggee mooy Malick li li wax du dalil. Ah. loolu te day xaw a. day xaw a doy waar wala. beneen bi mooy mbirum dalil dafa nekk lu sew. ndax maanaam dalil mooy ci atte bi fi fi mu sukkandiku. fi mu sukkandiku ndax ndax maanaam borom xam-xam li ñuy wax rek mooy amul kenn koo xam ne day jël engagement di waxal boppam di wax ay xalaatu boppam. Mm-hmm. maanaam day sukkandiku ci ay texte. Mm-hmm. texte yi nag lecture yi mooy wuti. Mm-hmm. nee na bu fekkee nga xam ne da ngaa ñëw nga ne ma man man daal mazhab Maalik laa nekk waaye loolu ndax maanaam. lu lu lënga di ko jël mm. wala lu xadis ñëw mm. faaw foofu li nga war a xam mooy mm. euh, imam Malik xadis yi li mu ci jot bari maanaam ñi topp ci na nga xam ne ñoo ñoo gën a feeñeel sukkandikuwaay mazhab bi li gis ay xadis bari na li nga ci ay bari na waaye jafe-jafe bi nekkul ci am am nas mooy am texte waaye na ngay na ngay déggee texte ba jumtukaay ndax ndax tamit bu fekkee te tey man damay jëlee ci ci ci dalil tax xamoo lan mooy teqale li ñu tuddee atte bu matale ak atte boo xam ne xaas la mooy bu bu xam ne ñeneen ñu ko tax a jóg bu fekkee da ngay jëfandikoo texte boo xam ne xamoo ndax am na lu ko folli bi wala amul lu ko folli bi bu fekkee de da ngay jëfandikoo euh, mas euh, atte te gis ne ah, ah, am na leen loo xam ne mm, mm, mm, dañuy def lu ko da koy contradictoire. Mm-hmm. yëpp boo ko jëfandikoo mënoo koo xam. Mm-hmm, mënoo koo xam kon dafa am benn niveau boo xam ne. Mm-hmm. boo fa yeggee nga def lu ñu tuddee al ixtiyaar. ndax ndax ci waaw ndax ci même ci. ngir yi day am ñoo xam ne dañuy nekk ci biir ay ponkal yoo xam ne. dañuy segg waxi eh, ngir yi. ndax nekkul ne ngir gi nekk tey. Eh, Imam Malik par exemple. nekkul ne lu wax ci ngir gi rek mooy wax ji. ndax yenn saa yi nga dégg ñu la Mali wax Achab wax na Ibnu Xaasim wax na. waaw maanaam ah. ci ñoom état waaw ñoom dëkkul kon dëkkul ne. Mhm. dañu am képp ku nekk ci tëdd liste koo xam ne. lu mu wax rek moom mooy wax ji. maanaam mhm. wax yi dañ koy dañ koy waxtaan dañ koy discuter teg teg ko ci taabal ji. macha allah waaw kon ba tax na. Mhm. boo taxawee ne. dañuy lay lay sukkandiku faaw nga xam ne ñee bu dul wax dañu di wax. macha allah ci dañuy sukkandiku. macha allah macha allah dafa mel ni ñu ngi may signaler waxtu bi jeex na. Euh, te man maa ngi maa ngi jàng njàng mu am solo très sincèrement honnêtement wax dëgg yàlla euh, waaye xëy na dinañ amaat yeneen jotaay ak yu gën a yaatu euh, ndax bëggoon nañu ñëw sax si muuru koor mais nag muuru koor wax dëgg yàlla wax nañ ko waxate ko <coughs> te oustaz yaa ngi ko wax si rajo yi ñoom Aliou Sall ñu ciy waxtaan ngi leen ñu mel ni ñoom kon bu ngeen leen seetaanee dañ leen joxaat muuru koor bi ñu bàyyi oustaz mu tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo ñoo a doon allah waaw maa ngi sant di sant oustaz. ci dalal gi ma dalal. Mm-hmm. di jégalu ci bu fekkee am na ay ci am. macha allah jéem rek. di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw di def liggéey bu am solo yàlla yàlla barkeel ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ci chaîne bi nga xam ne mooy Leuz TV. Mm-hmm. di wax ne lépp loo xam ne na si ak jéem la woon. lépp loo xam ne njumte la tamit ñu jégal ñu ko. xam ne dañuy jàng rek. Mm-hmm. yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla sàmm réew mi euh, ci feebar bi nga xam ne moo fi moo moo fi lëmbee yàlla yàlla yëkkati ko. Mhm. yëkkati ko euh, ba ko ci mbooleem fu fu nekk ci ci àdduna bi. amiin amiin yàlla sàmm ñëpp. wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah Oustaz man maa lay wax dëgg yàlla parce que. en tant que jàngkat xam naa ne bëgg wax dama la poñe te itam su ma la poñe woon woon benn tomb rek ci la ñuy yem xam naa itam li nga bëggoon a wax waxuloo ko ndax wax dëgg fa nga jógee sori na nga paasal jël oto ñëw ba fii pour liggéey ndax xam nga ne ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla moo tax loolu tam ñun duñ la si duñ la si ngërëm ngërëm lu doy kon dañ lay ñaanal yàlla yiw wi nga dépassé ba ñëw fii tànk yi yi nga jéego yi nga séqee lépp yàlla na ko yàlla def sa miisaan xasanaat incha allah yow ak say way jur ak say mbokk ak mbooleem jullit ah, mbokk yéen tam di leen jaajëfal wax dëgg di leen wax ne rek incha allah dañuy continuer ak yéen seen jotaay waxtaan bi di jàngat yeneen jàngat yeneen i tomb ak yeneen i borom ak i waxtaankat ak yenn i borom xam-xam incha allah pourquoi pas oustaz dina ñëwaat ndax itam li mu fi jungi nii même bu ñëwaatul fii itam man incha allah man faaw ma waxtaanaat ak moom ci beneen façon pour que li mu bëggoon a développé mu gën koo développé ndax wax dëgg en tant que comme ni ma ko waxee ma répété ko en tant que jàngkat euh, gis naa ci waxtaanam profondeur bu am solo boo xam ne dina néew sax ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy waxee en tant que jeune ndax bëggoon Eh, pëccoxoo bi am ci dëkk bi xam-xam yu bëri yu bees yi am ci dëkk bii ñi nga xam ne dañuy ubbee te waruñu ubbee ñi xam ne jàpp na ne am nañ sañ-sañu wax ci diine te waruñu ci wax yëpp bari na te itam euh, xay na mën nañ amaat jotaay pour waxtaanee ko mbokk yi incha allah yal na yàlla defal leen defal ñu dégg ak topp yal na yàlla sàmm leen te sàmm ñu sàmm ñu suñu njaboot ak suñuy wayjur yal na yàlla jéggal leen te jéggal ñu yal na yàlla yërëm way dawli yi waaye yal nañu yàlla teggal bi di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal Karim mi nekkoon ci caméra bi mook euh, euh, boy bi Eh, jibi xam nga jibi boo moo doon perturbé noonu ci suuf di leen jaajëfal di jaajëfal monteur yi ñoom bànn ak ñoomin seen di jaajëfal waa kër gi ñëpp di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk tawfeex sutura di leen jaajëfal itam ñi nga xam ne yéen a ngi doon seetaan allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim